والتقني قبل انتهاء الديرة يا الله يا عفيز سل بالسلام على الذي لك به هذا كلام سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمعاني وجل بجاه العظيم كلي بركة وخير كسر الخلي وجل قائدي منوراتي واجعل بي كليا ذا خيراتي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأقسمي من كل ما استقصت بك منه في هذا يوم وقبل وقت اليواب الخيرات التي اقتدتها لي ويسر لي وبارك لي في كليتي وفي كل ما اخترته لي بركة تزيدني وبك وعب رسولك وعب كل ما ترتلي وبوفني كل ما لب تبولي قبل توجهي إلي وقبل توجهي إلي وآتينا في دنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ناري آمين يا رب العالمين اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسبله خير الإيمان وخير الإسلام وخير الإحسان وحب الله تعالى وحب الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم وحب كل ما اخترت ليبو وسعادة الدارين مع كفاية عميما آمين يا رب العالمين بلا موي أبدا يا الله يا فيز سل بالسلام على الذي لك بي ذا كلام سيدنا محمد والآل وسعدي في الآن والمعاني وفذ بجاه العظيم عقدي من العيوب واعمني عن وقدي يا الله يا مانع سل بالسلام على الذي به كفيتني المرام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وامنع بجاه العظيم قلبي من العيوب وامني عن سلبي يا الله يا كافي أدم خير صلاة مع السلام الذي تنمو سيدنا محمد والآله وسع بفلالي وفي المآل ولتكفني كفاية تشر من قبل قصد كل ما يدر يلا ويا عاد سل بسلام على الذي لك به من الخلاف سيدنا شفيعنا المحمدي وآله وسبيه والأمدي وجل قائدي بجاه العظيم خالصة واذكر بي هذا النزيم يا الله يا معبود سل أبدا على الذي لك دعوة أبدا سيدنا محمد والآل وسعب في الآل وفي المآل سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي ولي بجاه الإسلام ووافق الفكرة والأقلام يا الله يا رقيب سلي شرمدا على الذي ومرو قد عمدا سيدنا محمد والآل وسعبه في الآل والمعالي وهب لي الإخلاص للجنان به ونور لي به جناني يا الله يا خير محب ومهب يا من جعلت المنتقى لك أهب صل وسلم وتبارك شرمدا عليه بالآل ومن خد عمدا من زعبي وسالين ترى وجلبي عمري ردا وبرا يا الله يا من قادري قبك معاك حبي حبيبك الذي خيرا جمع صل وسلم وتبارك اللهين على حبيبك حبيب سالعين سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي وإنك اجعلني حبيب الله حبيب أفضل الورى بالله يا الله يا فاعل يا مختار يا من لدي كل ما يختار صل وسلم والتبار صل وسلم سرمدا على الامين سيدنا محمد من لا يمين وآله وسابه وهب لي فوزا يغبطني من خبليا فيك وفي انك الوهاب يا من به لم يرغني راب يلا ويا فتى سلي سرمدا وسلم على بشير أحمد وآلي وسبي في العالي وفي المآلي يا مقيم العالي وآلي وسبي في العالي وفي المال يا مقيم العالي يا قائد الخير إلى الجهات يا مغنيا بك يدي عناتي صل وسلم سرمدا على النبي رجاء كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وسعب في الآل وفي المعالي ولتكفني أعوال يوم الحشر وليكن في أبد بالبشر واجعل لوجهك الكريم خلمي للمتعلمين خير سلمي ولتهدنا بك صراط المستقيم ولتغننا بما يسيع عن شقيم والتقنا دلال والإدلال وقل لنا مع ردالا يا الله يا بارئ سل بسلام على الذي عزمتني من الملام بجاي سيدنا محمد وعلي ما سياب العمد وعبلي الكتاب واكفني العيوب وعلمني به خير عيوب وثبت الإيمان والإقامة والخلق الحسن باستقامة وعبلي العدا وقلل لي فلاح والتقني الريابة وجد لي سلام يلا ويا كريم سلي أبدا وسلم على نبي أبدا وقاد خيره إلى العبادة ولي بجاي إفادة زين بكونك الجميل سائرا وباتني يا مزهر المزاهر يا الله يا رؤوف سل بسلام على الذي آتيته فيك خلاف سيدنا محمد من لم يرى فيما مدى نزيره ولن يرى عنه وسعبي وسلمي وقل له بشارة في قلمي يا الله يا جميل شل شرمدا مع سلامك على من غمدا سيدنا محمد وآله وصحبه في الليالي والمآل وليكن بزيد خير وربا وبجمال وبقاء بمباح واذكر عروفي بقدر ذاتي في مد من قرب باللذات يا فاضلا فضله الخلاق يا من بي فارقني الإملاق إلى الفضل الخلاق يا من بي فارق بي إملاق يا فادلا فضل الخلاق يا من بي فارق بي إملاق وجاتك اليوم وللرزاق كان بما تنمو به الأرزاق موت عني ما بي نفاق عني ما وجاءني نفاق رددت لي ما زان والوفاق بمن باستنارة الآفاق جاء رداك والفوز والاعتاف بك كما بك اعتلى الاعتاف بك اعتوينا ما له نستاخ صلى عليك الأكرم الخلاق يلا وسلي ولتسلم شرمدا على النبي عربي عمدا وآله وصعبي وأزبي لخير ناوين كل در يسبي يا الله سلي ولتسلم في أبا على قليل على الذي إليك خادم نبات سيدنا محمد ولا آله وصحبه في الآله وفي المعالي وعلمني به وفقيه والتقني كل أذم ونابعي ولي وجع ردا وزبا إلى سوايا كل ذو ينزبا يا الله يا فاعل يا مختار صل على من اسمه مختار سيدنا محمد وسلمي والآل وزعبي وقلبي علمي ولي في كل شيء مغنيا كليتي عن الأذى مستغنيا ولتغنني بحق وجهك الكريم عن الأذى وليكن بما روم اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة اللهم صل اللهم بارك على محمد حتى لا تبقى بركة اللهم صل على محمد حتى لا يبقى صلاة اللهم ارحم محمد حتى لا تبقى رحمة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه واغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأخيار منهم والأموات إنك مجيب الدعوات واجعلني من أحب عبادك إليك واجعلني سرورا لجميع عبادك في الليالي والمعالي آمين يا رب العالمين اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع قلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك اللهم لك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا جزاء لقائه إلى رداك وعند طرفة كل عين تنفس كل نفس عليك وعلى كتابك وعلى رسولك وعلى كل ما اخترته لي يا الله يا رحمن يا رحيم لك الحمد والشكر على الدنيا وعلى الآخرة فصل وسل وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وحبلي فيهما البشارات شافيات أقدارهما قبل التوجه إلي وقبل التوجه إلى أسبابها آمين يا رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك القديم عبدك بني يديك تاليا بجاي منك في دارين خيريك خائلا بك فيك لوجهك الكريم وكون كله بتوفيق وعناية وكرم يرون يا الله يا دسل سرمدا وسلم على النبي أمدا سيد كل عجب وعربي والآل والأساب أهل القرب يا الله يا نافع سل أبدا يا الله يا نافع سل أبدا على الذي تقديمه قد أبدا سيدنا محمد وسلم والآل والصحاب بكل مسلم يا الله يا نافع مسلم السلام على نبيك المزازع السلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وقلبي عذا نسام خيرا نسمي وسعسي لديوانا ديرا الله يا أعاد سل عني على النبي المصطفى بالمن وعلي وسعبي وسلمي ومنطقي سدد وقلبي علمي يا الله يا صلاتي وسلي أبدا على الذي بك اعتدى وعبدا سيدنا محمد وسلمي وآلي وصحبه وكلمي وسلي يا لطيف وسلي بأبد على الذي لك يقود من عبد سيدنا محمد والآلي وصحبه بالتسليم يا مآلي يا باقي أن أعطيتني عناتي بك وسنت عن أسنجادي صل بتسليم النما على النبي سيد كل أقرب وأجنبي سيدنا محمد والآل وصحب في الآل وفي المعال وسل يا عادي وسلم كلهين على نبيك إمام سالمين سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمعالي واللي يبدأ هداية يخبيتني في كثير ماكسا في وطني واجعل ممري ظاهرا وباطنا لي طيبا عبدا شكورا خاتنا وسل يا ودود ولتسلمي على النبي الهاسم العالمي سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمآل وسل يا ملك ولتسلما على الذي علمته فعلما سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمعالي واللي مدا يفوق كل هين بلا مسقة واللي ودا يدوم بالفلاح بلا مشقة ويسر لي سلام وسل يا لطيف أفضل سلام وسلم على الذي بدأ العلا سيدنا محمد والآل وسعبي في الآل والمعالي وملك من نفس وترد العين قبل انتهالها لخير يا معين وجعل توايا تابعا لما تهيب ولي في القلق ما منك أهيم بلا درار وبلا عداوة والتقني جوالب الشقاوة آمين يا لي بحرمة النبي والقلب مني كل در جانبي وسل يا أهد سرمدا على سيدنا محمد باب العلا وآلي وسبي وسلم وكل ياس من أذى وألم يا واعبا آتيتني الكتاب سل على معي مع العتاب يا واعبا آتيتني الكتاب سل على معي مع العتاب سريف سريف ثم جبلولا وقد زاد للاج فلو وتسياكار دلو كيلات كل أجمل جديد سيفل خنيولا أنا محمد المختار مني مالك وي يا شيخنا الفتلا يا من في ميمتي لا لا لولاك لولاك لولاك لولاك لولاك سيف الله لولاك شيخ محمد الفضل كشف على جفن لفن مقلب شيخ عبد الكريم لولاك شيخ الله لولاك fallu fallu lawla nga Cheikh fallu bu xewali war waleete bu la waleete kon na ngeen way Cheikhuna al-Fadala mooy faddalul faddalul azimun sharifun farisun fattilun Mbakke musoobe la kii moo jiite mooy wasila loo dem na xewali baawaan te dootu jeex abadan ku sopp Sëriñ Fallu ku sopp Alaaji Fallu Mbakke xewal war la war de dulaay sell li abadi xërin ilaa manaa daa tànne fe xam na la loo wax borom nguur ga kaw koo def riya ki jiboo wa ahlu diiraane seen mbooloo ya xam na la béyti wilaayati yaa yoru fa mu maan ba bu wér demal taxawee ne sëriñ nga yaa jiite mboolem kun waliw la gal gaa ngi nii teer ku nag ba tarde yow yaa koy xale ku dugg ci gaal sëriñ bi alaaji Fallu Mbàkke ak galalaat yaa Muhammadul Badiw sëriñ Fallu alaaji Fallu Mbàkke Seex Musaa Kan وبعد من موسى كلا مولاي ماي بقوي على جفل لاي على جفل لاي من ليس قلوب man jàmbe sab jaar léegi dooni xam nga li may compalu yow tibbal ma tëbul ma compal jeexoloo ñoddil ma yokkal ma fan yi ba ma bunt yi seeni dum ubbil ma wallaay man dolliku naa ak wóolu ak goog rafet njortu ba far wakiiru way wi danaa ci boole ay tagaki ñaan ndax yàlla boole ñu musal ñu ci kañaan way wi ko dégg sant buntu bu ñëw ngeen fàtte buntu boobu yoon te mooy xibaaru lii bi xew ak la fi woon mbirum Serigne Fadilou mbirum Serigne Fadilou mbirum Serigne Fadilou ku sopp Alaaji Fallu Mbàkke digg mag waa Makka laay njëkk a wax ba kenn du sikki sakka danaa la wax li tax mu yor jumaa ji ak fa mu jaar nga xam ni mooy Alaaji danaa tax mu def xalifa fi zaahir wa baatin ba foofa amaana kuy woote mbirum xalifa te soo demee diwaan turam ba deefa xalifa day jàkkay ba woobu soobe ñii ay sérif lan foofu xanañ doroobe xalifa day jubóog boroomi doole xaqi tariqatoom shari'atoom lay boole xalifa day am mbooti inni jaayilu inni jaanaaka te tudd Sëriñ Fadilu ngi ne li yàlla def ci bi xalifa mu ne su ko xam umoo sharif wa umoo sittiatu sharia aarifatun mardiyatun mahrufa wayam ni mbokkum jaaratu ilaahi umu xalifatu rasulillahi wàllu ndeyam di wàllu yaari maamam ndeyam di baayam ko sopp alaaji fallu mbakke baayam ay ni jaayam wàllu ndeyam di wàllu yaari maamam ndeyam di baayam baayam ay ni jaayam tey jii ma wax leen mbir yu tax ngeen wuy ji alaaji Fallu lay jar naa wuy ji am na juma am jàkka am na marché senc na ay jëndi nee ko mer ndax dañoo toll ci musique fecc lool lan la woon mooy bëggoon ñu mel nii tey waaw bëgg nañu du ma guddal nag xam naa ne damay sant seen yaay parce que xam nga yaay mooy yar ndax bàyyi day wuti waaw mais aw ma ci lu ma naqari parce que Amérique bari nañu fa ñëw mag sax bu sàgganee des fa astamaak xale bu ndaw kon buñ bu buñ meloon ne na rek man la ñuy jaaxal daal waaw kon buñ demee ba yàlla def ñuy sëy nekk ci li war a nekk donc ba pratiquement yàlla def nga dem bay gis sëy sët ci gisoo ci kenn ku la jaaxal macha allah doo def lu du rek gën a sant yàlla ci xam ne loolu ndimbal la du du du du jàmbaar merci du jàmbaar dañ laa dimbali waaw suñ borom miy juble nag man xasida rek ma mos a saf waaw fu ma mos a nekk ci xasida rek laay lijjanti waaw loolu la kon di ñaan suñu borom dolli leen a jubale dolli leen xéewal maanaam musal leen ci bépp pexem doomu aadama ndax ndox dafa gaaw waaw ñi ci des nag dañ leen di ñaanal ñëpp rek ñi am jëkkër yàlla na seen borom defal leen lu kawe seen ci seen sëy ñi ko amul yàlla na borom may ay borom kër yu leen mën a yor waaw ñun nag yàlla def dafa def euh, li may wax rek dama leen moom ba muy sëy si kër ga ci pantre la sëy si ñëw bagage am ci ron lal bi la doon nekk ma nekk armée dix ans dama daan fayeeku ñëw di ñibbi mu ne ma yow fayeeku nga ma ne ko waaw mu ne ma mënoo may sax sa débal mille francs ma daal di lay daal di dem ndekete booba suñ borom daf ko denc lu ëpp loolu waaw Amérique manoon bu du woon sëñ mus Moodu Bousso Dieng ma ne foofa laay des ndax fetal nañ ma fa juróomi bala fetal keroog moo ne dana jóg ci xéewal ciy topp waaw kon bu nuy woon sëñ Fallou ma ne leen man booba li ma daaneel moo tax ma ne naa leen ko wax juróomi bale fetal kuñ ko fetal Amérique benn bal rey na fa nit ñu teg ko tekk indi def leen ci kees indi kon suñ borom daf ñoo terale loo xam ne ñun xawma ku war a sant yàlla wala ñun ñu war a sant yàlla waaw ndax ñan fa nekkoon yoon ñu bëri faatu nañu fa parce que peut-être dëkk bi moo demee noonu rey nañ fa nit ci ay lu dul benn du ñaar def nañ ci ay kees indi leen kon bu la yàlla baaxee docteur bi ma opéré dafa ne ma yow doo nit ma ne ko ah mu ne ma bal yi ni mu duggee bu ko génne woon da nga war a paralyser même boo deewul woon wala too woon a dox waaw donc euh, ñu dollee sant yàlla rek xam ne suñu borom dafa noppi ci jaamam. waaw bërki démb benn xale boo xam ne dafa ñëw aw fi muy aw ak coonoom ñëw ba dugg Amérique faatu fa <laughs> dafa fanaan rek faatu ci guddi benn fan la fa fanaan ak coono bi mu daj lépp ñëw. donc suñ borom dafa noppi ci jaamam waaw ñu xam ne ñun dëkkuñu fii dañuy dellu fa ñu dañuy dellu ci suñ borom mais bu ñuy dell nag na fekk ñu liggéey bi rafet moo tax sëñ bi lañuy gën a sant ndax mbooloo mi ni mu toogee toog di déglu xasida yi maanaam yombul am ci ay jàng yombul am surtout ay jigéen ak yooyu donc duñ def lu dul gën leen a sant gën leen a ñaax xam ne kii kat li mu doon wax fa ko suñ borom bindee maanaam euh, ki ko doon bind fa loolu lépp lii rek la ci bëggoon pour mën a am tedd nga ak àllaaxira yàlla na suñu borom defal ci barke Xaadimu Mustafaa xam naa nañ ci sant nag damay bàyyi ñu yeggale jataay bi daal mais dama ne woon rek xaaral ma barkeelu kii nag sama jàngkat la moom. <laughs> waaw. dama bëggoon ñëw pour barkeelu. waaw waaw xam ni ñu ngi ci jataay bi kenn ku ci nekk xam na fi ba du jaar ak moom. dafa fekk ni baddu da ngay gor doon nit ku baax mën a tëral jigéen ndax lii nga wax ci moom ak def gi nga ko def mu mel nii mu mel ba pare nga retourné waat di ko gërëm wallahi lazim yaa baax ndax ñëmbët ni mu mel ku ne xam na ni yaa ko def noonu nit ànd na ak nit jaar ak moom fi mu jaar ak moom mu metti lool mu ye dem ba yàlla dimbali ko mu wan ko gannaaw waaye baru defoo loolu boobaak léegi yaa ngi sant boobaak léegi yaa ngi sant man ba ma xamee baru ba léegi muy ànd ak njëmbat njaay mi ngi sant te yonent bi moo ne man lam yashkuru naasa laa yashkuru laaha moo tax sama yaay daf may wax ne ma amaat baadoolu piir kër fàtte la dëkk baadoolu piir kër fàtte la dëkk gis nga koo defal teraanga mu naan dama koo fàtte sama yaay nee na buy wër mbaa jàppal waaye badu barke Seydina Muhammad yow yaa jor yaay baax yaa baax te alaaji Abdou da daan wax naan yaa baax munta paase yaa baax suñu bokki njëmban njaay benn baay bi nu jur Aline yoru jur nu fat fay njaay toog nee moom lañ tuddee seen yaay ñoom ay daware ñoom ñëw nday mari ñëw ñoom ñëpp ñëw ñu toog nga ci kàddu yu tedd yi sell yu baax yi jëmale ko ci njëmbat te ñu bokk moom benn baay te jëlunu ngërëm di delloo la ko su boobaa dañuy tudd leneen lu dul gor te lii may wax su ma jëloon rajo bi jox ko Ndeye Marie mais mu wax lu raw li ma ci wax ndax xam na ci dara ñëmbat njaay ba muy dugg ci say loxo samay ay xana xale yi booba lu ndaw la seize la am booba man lu tuuti laa nekk ca kër ga waaye fàttewu ma dara ndax sere wolof njaay day wax ni booy lebal lebalal xale ndax xale du fàtte ñëmban njaay léegi laa koy fàttali ko ne ko sa lalu ven ba ne woon sa biir néeg ma ne ko sa lalu boobu tey moo indi lii ndax danga koo muñaa ah waaye nag danga ko séq ak gor nga séq ko gor goo xam ni dangaa séq ak moom sonn ànd yi ñaar ngeen jóg daanu lépp tey mu xëy nag ni lépp yaa wax te barke Seydina Mouhamad Badou Mbengue mii la kon nag Badou ñu lay ñaanal. yàlla jégal. muy sunu waa ji. bur yàlla yaa fasay na xaadim defal nu leen. Modou Mbacke Iblis Sërël. Ahmadou Mbacke. yàlla jégal. ci sunu waa ji. bur yàlla yaa fasay xaadim defal nu leen. Modou Mbacké njariñ defal Modou Mbacké a ah, sa bég fulal sunu waaji leer ya fees yaram nga may nu leer Modou Mbacké imisol Ahmadou Mbacké yàlla jege cey sunu waaji Modou Mbacké min sa ndigal mi say ngërëm xasida yee Ahmadou Mbacké ci sunu waaji Modou Mbacké min sa ndigal ami say ngërëm magal gi gàmmu geeg njàngum xasida yee Ahmadou Mbacké ci sunu waaji Modou Mbacké min sa ndigal mi say magal gi gaamu geeg njàngum xasida yee Ahmadou Mbacké ci sunu waaji Modou Mbacké min sa ndigal ami si ngërëm magal gi gàmmu keeg njàngum xasida yee Ahmadu Mbàkke mooy sunu waay gaañe fa bu leen safar gi door nañu bégale gaañ waaw a gaañe fa bu leen safar gi door nañu bégale waaw safar gi door nañu bégale waaw mbégte mi na fës dëkk sare neex ñu tàmbale waaw safar gi door nañu bégale baal ma jégal naa la nangu la ko jëm ci bisu bee waaw ale dara ba mooy ama jese sin at ma dem ba ma dem ba xaratu yow ma sabti sa mi nasar li xidmati muxtaari tari safar weeru cant la gaani famu leen waaw safar gi door nañu bëgale jaayante ga sa jàmm jee gaal yi famu leen waaw safar gi door naa ñu bëggalee waaw dem gi cant la dellu si gi tundoon li cant la gaal yi famu leen waaw safar gi door naa ñu bëggalee weer wi la ñu daan bona na toom yot kaful ko yot kaful ko bis mu toog di xaar yàlla ni ko jeex na na tuy jeex na na màggal gee. magaa ñi fagu leen. waaw safar gi door naa ñu bégalee. pay gi jolli gaañ waaw naag gi ñu la war jëf ji e, gi ñu la war jëf ji e, gi ñu la war jëf ji ñu la ñeel ginaar ah, jam ñee ko jaraloon dem at yi ca Gabon ba gànnaar gi ñoo ñëpp dem at yi ca Gabon ba Gànnaar ci dinul ñëpp dem mooy sunu mbir ay yoonam wenn yombal mbir cër yi jafe woon na seetale ñu ko doon tay dem mooy sunu mbir ah jam ñee ko jaraloon dem at yi ca Gabon ba Gànnaar ci dinul ñëpp dem mooy sunu mbir ah nangu Ismaïla ga tax Ibrahima maxoom ga jur seet ca ñoñom yow dem mooy sunu mbir ah nangu Ismaïla gaa tax Ibrahima na toom ga jur feet ca ñoñom ya a ah, bis bi rek la ñu am moo gënoon ci murid tabaski war daa wax a ah, bis bi rek la ñu am moo gënoon ci murid tabaski wax a ah, ndax la jëfal kaloo mënul dégg gaa ngi mooy a a yor yor añ joxe doom ya yor yor gi ndeke la a kuy way nangu ko may teral na bi bisu ah, kuy way na nga kuy njàng nga teral na bis bi bisu feet ah, kuy way na nga kuy njàng nga teral na bis bi bisu feet la ah gan ñi ñëpp na bekk wala xeete ki seen amul njaay mbalaak say bàyyi kumba laay sunu bés ah gan ñi ñëpp na bëgg seetlu seen loxo njaay kumba laay sey ah genn néeg yi dalal matelas ventilo kilim ndox bu mu manqué ah genn néeg yi dalal matelas ventilo kilim ndox bu mu manqué ah genn néeg yi dalal matelas ventilo kilim moo manqué bébé mooy sunu kuy way na nga ko may kuy jàng nga teral na bis bi bisu feet kuy way na nga ko may kuy jàng ah, may nga safar bébé mooy sunu bés gam ñi ñëpp na bëgg bul xeete ci seen amul njaay gu balaas bébé mooy sunu bés gam ñi ñëpp na bëgg bul xeete ci seen amul njaay gu balaas bébé mooy sunu bés yal na ñëpp di tal fekkee gën a mën bu ñaw romb mara bébé mooy sunu bés murit laa bëgg murid sadiq lay doon murid jàmma moom murid lekk ma neex murid laa bëgg doon murid laa bëgg doon murid sadiq lay doon murid jàmma moom murid lekk ma neex murid laa bëgg doon murid laa bëgg doon murid sadiq lay doon murid jàmma moom murid lekk ma neex laa bëgg a doon. al murid laa bëgg a doon. murid saa di may doon. murid jàmm murid a moom. murid rek a ma neex. min allah illa allah. min allah illa allah. ay na muritu laay. yàlla ma ci woo wuyu naa woote mbaa. murid laa bëgg a doon. al murid laa bëgg a doon. murid saa di lay doon. murid jàmm la moom. murid rek a ma neex. li mu yee. na fi moom la fi yéene borom du tijaan ak xaadir du ci waaso du xeet yi du ci jaaga du maabo waaw oh, mbégte mi ma am man dama yeer tey borom Touba sama xol bi daa saf ci bànneex ah mi ma am man dama yeer tey borom Touba sama xol bi daan sax ci bànneex ana ñu seen xol yi neex mbégte mi ma am man dama yéem ah sama xol bi daa sax ci bànneex ah yëgatuma neex ndax neexam gi ah dëgg-dëgg baa ngi neexee waa ji ah sàppe su lii suur suuraw xiif ah yàlla rek a dul sàlli saf gi ah fitna rawul gis lu dul moom ah, sama peru bët yi kii lay xool ah, fitna rawul gis lu dul moom ah, sama peru bët yi ki lay xool a ah, ëpp na ma ndey ëpp na ma baay ah teew jox na ma ndey ju ah, na ma a teewul jox na ma ndey ju baay ah ku furu mënoo seede ji waay ah sukuru de mooy ci lay ku ko amagul wéril bi ah benn la fi yàlla defar fi ah nos gi no am yéene ne leer ah yàlla bu mu leen ump ñam leer ah seere sa kursin seere woon kii. tabaku manoo fel te xel gi seere sam kursin seere bon gi tabaku manoo fel te xel gi a yàlla na am jàmm ñaan gi a mo na ñépp nangul seydi be a yàlla na nu jàmm ñan ah, na ñëpp nangul sëriñ bi ah nu am jàmm ñan gi ba na ñëpp nangul sëriñ bi déglu ma ma xal na moom bëgg na nga jariñu fa moom moom moom li nu moom genn fi am fee nu min kii la nu doy la sang baañe ma wax la tewan la borom dégg ku a jar wayal ko am njëkk ma teewlu nu miin kii la nu doy na defar na jikko ca mag ndaw ñi jóg nañ na yarkat bu mag baangi ñëw na yal saaliw la nu wala yi lii lu baax la borom jamono am ko doy na saabirul nu min kii la nu doy na sabu baangi ma ne yonen yi xutbu yi bu ñëpp del si woon jamono du nu wor borom jamono saabirul nu min kii la nu doy na sabu ma ne du maa sub ki leen sut nde mooy ki leen sangu bi yaa ngi leer naa dew la nu meen kee la nu borom xel ko gi ñëw leen ku mel ni moom amatul fu ni jëleeti ngërëm a xanaa nu laaj sëriñ seet a waawaaw ndeysaan borom xel ko ma ngi ñëw leen ku mel ni moom amatul fu ni jëleeti ngërëm xanaa nu laaj sëriñ Seex waaw waaw ndeysaan ah, man yërëm naa koy nelaw ba dee tax mu la mu duggay héritage man yërëm naa koy nelaw ba dee tax mu la sama waa ji ah, man yërëm naa koy nelaw ba dee tax mu la héritage ay waay li tax waxu leen ma li tax wanu leen ma sang wax leen sang li tax waxu leen ma li tax wanu leen bi ay waay lañu dige woon jaamu luy nangu woon ñépp ngi naan wax leen xam nañu loxo ba ñu tiimoon ban bi ki ko raaxoon sorewul wax leen kii mooy sunu borom zimaamul wara moo ko bindoon nosu mi ndef yaa ngi ci man ay Serigne Touba irham jami alwara ki moom rox ne sa sayoonu day ndeysaan kaddu yërmande ngi borom yërmande moom Modou Fall rox ne sa sayoonu day ndeysaan kaddu ngi borom yërmande moom Bichri. sant rek war ku laam xam ni yaa jara cakaayoo. sant rek war ku laam xam ni yaa jara cakaayoo. sant rek war ku laam xam ni yaa jara cakaayoo. li nga yëg sa xol ci salaam min mënoo wax lépp feccal ko. kin jëfam ci yow dara xul kenn yaayay ni ko way naa la defal na lu la bàyyi mënta may ndey yeggu fa doomam nde yàlla ndey du ko xam lu dul njëkk a ko jaayante la ñuy di ko jaay wuute nag loolu sëriñ Fall njureel la jaay ci ndekoog yàlla te doomi sëriñ Bamba te doomi Bamba du ma ku jur cër ba du tiim ñooñe ne saali wooti amub yàlla am leen ma nde am naa ko kii nga am to doon wuti wax laf lu dul laf ci xemam yooye ne cant yàlla da dee foofa jëf yi mooy njariñoo gaaw le bilaay da mbég mi yëngu walaay da mbég mi yëngu waaw waaw da mbég mi yëngu bilaay da mbég mi yaakaar na nag kenn du la laase alitu bi yàlla gala suñu fallu bilaay kenn du la laase alitu bi yàlla baatin la yàlla sañ ci mbiram ci bal ci nitam ca ku ko sopp cay galas bilaay ku ka yaakaar ëllëg kenn du la sëñ xaritu yàlla galas ajjuma la feeñ ci weer rajab ca maawal tafis daaru salaam ñi nenu sëñ Fallu bilaay ku ka yaakaar kenn du la sëñ xaritu yàlla kéemaan yi yéem nañu kéemaan gi le bamba am yu ne Serigne Fallou indu ne billaay kii ku baakar kenn du la la seyib xaritu ma way la musoo beg mbàkke la ki weer ne fu neex leer ay mbiram billaay kii ku kenn tu la laay si xaritu bi yàlla waaw moo woote la biiram ngee fi defar murit yaa ñongal ca booba ngay ñagal bilaahi ku kaaka ceerno tun alaa sayib xaritu bi yàlla kala fajal nga coono yi ñi fekke woon ba ñi fekkewul saxar baax dal nanu bilaa kii ku ko ceerno tun alaa sayib xaritu bi yàlla na am ji Tuubaa de am na ci bari ngay amal ci saayir baatinik bilaa kii ku ko ceerno tun alaa sayib xaritu waaw am na waay bu bokkoon weddi galas nga dégg ñu naan Serigne Fallou man lu ne Serigne Fallou billaay kii ku koy aka kenn du la la seyib xaritu mu ne Fallou soom ginaar la bëgg Serigne Fallou ni ko wëril bi jënd mbaam moo koy rat Serigne Fallou billaay kii ku koy laka kenn du la laase xaritu yàlla kii la nu doyloo bilaay yaa defari dëkk be woote magal li ndefe yaa njëkk a miir armele yaa defar fa ñuy julle ki baat Sëñ Fallu dafa di fi demas pomp yayiwal Sëñ Fallu dafa sof ku ne tan samp fooraas Sëñ Fallu dafa cama bala yoon wi yamoon Sëñ Fallu dafa yaa ko dorong ba fa Tuuba Sëñ Fallu dafa marso kaas yaa fa ñaan Sëñ Fallu dafa waaw moo jiite ubbi jumaa ji julli yéeg min bar tari ni amatul naal galas suñ fallu filaa kii ku baaka kenn turawaay si yéen xaritu yàlla jërëjëf sëñ fallu war naa mooy borom ni baayu Sëriñ Abdou Karim ñëpp lay bëggee jëfin Sëriñ Fallu war baayam yaa nga fay wal leer na waa Bogo liggéey bi sëñ Fallu war naa mooy borom Karim waaw am fallu doy na ngir lépp ñëw na xéewal yi wal na Fallu neex am fallu doy waaw ngir lépp ñëw na yéen ku xaj na. waaw Cheikh Fallou neex na. am Fallou doy na. waaw ngir lépp ñëw na. xéewal yi wal na ñaan yépp faj na. Cheikh Fallou neex na. am Fallou doy na. wilaay ngir lépp ñëw na. Amar Khari. xéewal yi wal na. ñaan yépp faj na waaw. Cheikh Fallou neex na. njukkal la war na bay mbeen. jar na sant bay foot. Fallou jar na jërëjëf. na bay meen jar na sël bay bool am lu jar na jaayoo ak cantu war na buri bi raw na sëñ Muntaxa mi sëgal na la neef bi faw la yaay xallu wi leer ci yoon wi leer waaw waaw ndeysaan Kalifi gimoon pës yee fi rappoon yaa jeppe daay wi jafal ku ne waaw waaw ndeysaan mu taxaami sigil lola sët wii nii doom moo soñu saay doom ëllëg ki doon na doon kile waaw waaw ndeysaan mu taxaami sigil lola yaa dolli ngëm yi yeesal xam-xam yi am yàlla moo wóor may nga nu lee waaw waaw yaa jëm fa kooke di yóbbe ñoo ngi nu yërëm mbaa ke jajji na waaw ndeysaan yaa fees ci xol yi saf kër yi ngir yaataaru toogaay uf ñépp yi waaw waaw ndeysaan ku ne bëggoon na am sa jëm je réew mépp ñaan sa melwe ku ne bëggoon na am sa jëm je réew mépp ñaan sa cheikh muntaxa laay roy ngir mooma doy ak doxinam laa yem ki jar na way yaa jekka aw sam min ruuroo gi tool sa jur gi suur nañ te jaaroo ci mbooy bu yeewoo muf day xam ndigal toppal sëriñu beewoor mooy mooy mbugal murit dafay baax am yërmande du tooñ te ko tooñ mu jëlale soxna baali mënul taxa sa sañu yal na murit yi xam ak jàngale Bichri yaa di murit am nga ngërëm saa digle waaw waaw ndeysaan yaa di murit am nga ñépp la naw saadix bi lee ya waaw waaw am ndeysaan yaa sell waxin taaru jëfin gëm sa jëwrin ji lee waaw waaw am nga ndeysaan ñépp la naw waaw mu dugay fonk gone wekku la mag jox ku ne cër yaa nangu dogal yaa am nga nga ndeysaan ñépp la waaw Modou Gaye mbég nga saxoo ree nga sàlloo jàmm ci yow ak cant ba fa yaa waaw am nga ndeysaan ñépp la waaw saane Modou Gaye siis du murit nay du murit rëy du murit bokkul ci ñun laayaat waaw waaw am nga nga ndeysaan ñépp la naw waaw alum am mu joxe sedd ku ne bernde nga xam cantaakon be yaa waaw waaw am nga nga ndeysaan ñépp la waaw bishiri sañ murit sol gu jotit yor xasaayit nan ka di durus yaay waaw am nga nga ndey saal sama waa ji wax sañ sa sol gu jotit yor nan ka di durus yaat waaw waaw ndeysaan ñépp waaw lii ku ci nekkul ay ku ci bokkul maandu tana pee ñun ñoo ngi ci lee waa ay ku ci bokkul bilaayi ah xel du ca sañ ndax tin na xalaat ya ahmadu ñëw na indi feeñal ya waa ay ko ci bokkul bilaay ah xel na xalaat ya ahmadu ñëw na indi feeñal ya waa ay ko ci waaw xal wi yàlla te yoonu ite yëg-yëgi biir laa soxla fa ngoot yaa waa ay ko ci bokkul bilaayi jébbalu daa xew ànd ak i sew sew ibli gisul woon mbot ma ca ban ba waay ko ci bokkul bilaay doon mburi tay chance baatu ndimbal la tànn ga ber la pay ga fa yàlla waay ko ci bokkul bilaay ahmadu ndam la sala ci duniya teranga la jàmm la mbégte la féete la amadu naam la sala ci dunya teraanga la waaw waaw mbégte la féete la naam la sala ci dunya teraanga la jàmm la mbégte la féete teraanga la waaw jàmm la bu ñu la xamoon kenn du walli am yaa di ko yaay ko woon yaa di kon Madina teraanga la waaw jàmm la waaw màkkalu pamaase gam nangu mbiram topp ngiram yàlla gërëm sala duniya teraanga la waaw waaw tooli wurus yang fii ci sunum réew or jamaa pétrole non Cheikh Khadim may duniya teraanga la jaam la bekte la fete sa doon gi nga doon murid saadix bi ñu dëgmalee safar gi ba léegi ci wér di lay dox programme yi ma am tey yu ci bari dama ko annulé waaye yow muy taw muy naaj muy guddi muy bëccëg dama lay teewal te kat teew gi force lay doon ndax teraanga teraanga rek koy fay sant naa Serigne Saliou sag gi nga xam ni am naa ko ci biir Jannatul Mahwa gii mooy samp fa kër gu ñëpp yi waxtaanee te yeggagul sag boobu su ma ko amee tey maa ngi seeraloo àdduna sépp ni jëmm ji la barke Serigne Touba bi ma jugee rek ñi damay samp kër daf ma daal di teg ci aw yoon teg ma ci aw yoon di ma soññ dem naa ba moom mu gën maa bëgg kër gi ngir sëriñ Saliou waxam juré yi jëmu wax murit fi muy dox ba yegg fa mooy yéene sa bopp li nga yéene sa morom man de wuur na ma ni loolu yaa ngi koy doxe yaa ngi koy waxee fi jamono toll nga àttana bàyyi sa yitte tama xam la bu baax xam ñàkk jot ji ñàkk jot léeg-léeg ma nekk ndakaaru ñu ma téléphone ne ma moo duggee ci sànc bi damay rus damay am kersa te loolu yëpp sax mbaax ak yéene gi ma yéene waaye nee naa la sama cant balaa ma ko joyal damay téye sa loxo ba ci mu Serigne Cheikh mu Serigne Saliou mënaguma wax damay junj rek barki Serigne Touba waaye maa ngi seeraloo say bokk ak say soxna ak sa njaboot ni sant naa la bu baax. فها نحن في ديخين شديد التراكم way xanaa mbooloo mi ku bëgg yonent yàlla Muhammad néew fi ah sama goro ko ala ya rasulallah ya afdalal wara fa nahnu fi dayxin shadidin تركمي ألا يا رسول الله يا أفضل الورى صبلين يونين فها نحن في ديخين شديد التراكمي ويخنا دي بوغيت يالله محمد نونو تي مولو يا رسول الله يا أفضل الورى فها نحن في ضيف شديد التراكم فها نحن في ضيخ ولم نرجو فارجا سوى الله والهدي لسبل المكارم صدقت على ما قلت في عود ديننا ليسان غريبا كما في الرباط يا خير راحمين إلهي يفعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع سنة في تراحمي نعد عليها بالنواجز مثل ما به خالف الإنساء نظرة هاشم بمحمد